réew mi 24 TV dal leen ak jàmmoo ci xibaar mardi 3 octobre mu mel ne jamono yi askanu Sénégal ki ñuy waxtaan rek mooy candidature Ousmane Sonko fii su Ousmane Sonko bi nga xam ne rek moom la ñu téye jamono yi lànke kanaar rek ne dañ ko jox bu ñuy sukkandikoo ci avocat bi ñuy woowee maître Bamba Cissé moom mii di metre Bamba Cissé mu ngay sàkku rek ci kuréel gi nga xam ne rek ñoom ñoo yor wàllum élection fii ci Sénégal mooy DGE moom mii di maître Bamba Cissé ma ngay rek dànkaafu di ko jëmale ci ñoom di leen wax ne rek li ñu bëgg nii rek duñ ko nangu benn yoon te sax mom mi di maître Bamba Cissé mi ngi sakku rek ci askan bi ngir ñu daal di té rek seen électeur rek daal di diglu rek ordre yi nga xamné rek warna jogé ci ki di président Ousmane Sonko ginaaw rek bañu taxawé rek daal di né DG bi daal nangul rek ben yoon daal di rek jël li nga xamné rek moy fils présidentu Ousmane Sonko bi daal di leen koy jox lolé waral nak maître Bamba Cissé mi addu di wax ne rek jamono yi kon nañu té seen électeur rek diglu rek li nga xamné rek jamono yi mom la wa Pastef nara def kon ginaaw rek bañu taxawé rek Ousmane Sonko rek kenn du ko jox fiche am kon fii la Sénégal toll mu mel ne rek jamono yi Ousmane Sonko moom moo nar moo tere naru état wu Sénégal ginnaaw ba nga xamee ne rek jox nañ ñëpp seen i fils ñoo xamante ne sax mérité wuñ ko ñoom lañ ko jox asuma nag ak Ousmane Sonko kon jamono yi ñu bari dañu xaar rek ñoom ñu jox ko fils am mu mën a rek commencé ci euh, parrainage yi